madame nata Mbacke jeurun ji nga xamante mo lañ dénk lépp lu soxal yokkuteeg Sénégal yi nek ci biti rew ak fondation bi ñu woyé FAISE mo fas nak sobu ci yoonu politique loolu rek ngir jappalé ki nga xamante ne Macky Sall waaye tamit fexé ba kurel gi di Benno Bokk yaakar gagner élection yi ñu dëkkmal. tay ji liñ fi liñ fi dajalé won tay c'était pour ñu woné rek les réalisations du président woné aussi suñu jappalé ci la liste Benno Bokk yaakar parce que Sénégal tamit benn bop la. ñun dañ fay ñëw pour jàppale gis li nga xam ne nii ku gis ne ne ne ngi dañu fay nekk en tant que actrice de développement en tant que ku ñu jox nomba tànk ci biir parti bi parti bi di ku ñu def euh, député yaa war a politique parti bi képp ku ci bokk da ngaa war a wane li président de la république def man damaa gëm ne li mu def ci juróomi at def toog nañ fi 60 ans de pouvoir te am nañu ko fi toog te defuñu ko. soobu googu mu soobu nag ci politique bi wéetut ci benn yoon ndaxte nag yeneen njiitu yi nga xamante ni ñëpp ci benn bokk yaakaar lañu bokk te nekkee foofu ci Grand Yoff ci Goxam ku ci mel ni Modou Sy waaye tamit ak maître Ousmane Seye ñoom ñëpp daal di ñëwoon nañ ñëw ci ndaje moomule ngir taxawu ko waaye tamit yokk ko doole. wax it li waral ñu ànd ak moom ci mbir mi lee beneen pàcc bi gën a soxal madame Mbacké muy développement maanaam yokkute gannaaw bu ma jàppee ne doomu Grand Yoff la mu amal ci ay kàddu yu wér waaye tamit fas yéene ci xar tànki tubéyam ba mébét boobu daal di antu li ñu def ñu bari bëgg nañ ko def mënuñu ko def mais yàlla moom la ko jox kon ñun bu ñu bu ñu poussé tuuti rek dinañu am lu raw loolu loolu moo waral ndaje bi ma ànd ak ceeg ay nit ay actrices de développement yéen a ngi gis fii ay femmes entrepreneurs ay femmes cadres ñu ngi am benn cadre bu ñu bu ñuy liggéeyee muy femme action développement c'est apolitique mais nit ñi bu ñu gisee li nga xam ne ni jar nañu jàpp ci dañ ciy jàpp. femat li njëriñam mooy jàppale jigéen ñi suqali jigéen ñi te boo suqalee jigéen ñi suqali nga dëkk bi suqali nga kër gi suqali nga famille bi. donc FEMAD li muy def mooy li ñu njëkk a wax mooy boole nit ñi ñu bandandoo di liggéey ndax ni ma ko waxee ci tubaab rek boo yoroon sa 1000 francs cuuraay di ko jaay am fukki nit yooyu jaay boo bokk ci FEMAD bokk ci réseau boo xam ne y a un millier de personnes di nga xam ne li nga jaay dina ëpp lool. xam nga politique ak développement nag ñoo ànd ndax nit ngi dañoo yaakaar da ngay tëdd sa kër rek daan ne politiciens yi nañ leen ñu liggéey ñun dañuy développé. ñoom ñooy politiciens yi ñooy définir euh, la stratégie de développement su loolu kon booba ñun dinañ am problème ndaxte dinañ toog suñu ko daan ne ni lañ bëgg a doxale fekk politiciens yi neneen lañ bëgg a doxale ñu doxale ko noonu donc ñun aussi ñu xam na dañ cee war a jàpp gis madame Nata Samb Mbacké ni muy liggéeyee gis na président Macky Sall ni defee ñu ne kon kat kii buñ ko ah, bu ñu ànd moom ànd président Macky Sall ndax dañoo bokk ni ñu xalaate noonu la ñu war a defaree defaree dëkk bi bu ñu ànd ak moom dina mën a sotti loolu la yëpp nag amoon ci xumbaay boo xamante ne bu am solo la gannaaw bi nga xamante ne bu mag bile sax ñëwoon na fa Fatou Guewel Diouf daal dafay tagg ay maamam waaye tamit joxe fa ay kàddu yoo xam dina tax rek askan wi gën a takku ngir rek élection yi mucc ayib. loolu la yëpp li ci madame Mbacke jublu rek mooy fexe ba citoyen yi gën a takku. waaye tamit booloo doon benn ràññee it li nga xamante ni njiitum réew mi def na ko ci réew mi te mu am solo lool ci wàllu yokkute waaye tamit fexe ba jox ko rek majorité présidentielle ci atu penc ndew réew ma ngir rek mu mën a yegg liggéeyam. waaye loolu léegi yëpp nag ngir mu àntu faw rek lii violence maanaam pëcc xoo bi am jamono yi ci politique bi ak xiiroo ba ŋaayoo bi yëpp jógee fii. ñu xalaat ne Sénégal du violence Sénégal nit ñi dañoo war a ànd nekk benn muy ci biir parti bi muy opposition.